bokki jullit yi ñuy seetaan ak bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen ndokkeel di ci ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te ko eh, di am bu baax ci jataay bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir leeral lenn ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne dañoo boole seen bopp ànd ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ci njiital Serigne Afia Bousso Muxtaar Serigne Afia Bousso imam mi nga xam ne moo jiite daayira bi daayira Muxaddamatul Xidma nag mi ngi sosu ci weeru mars ci 1994 ci ndigalul Cheikh Saalihu Mbakke li ko tax a jóg nag weesu wut yii may bëgg lim nga xam ne yooyu yëpp soo dee dégg daayira Muxaddamatul Xidma daal bëgg xam lan mooy taxawaayam ci dëkk bi wala ci yoon wi nga bàyyi xel ci lii may bëgg lim bi ci njëkk mooy taxawu jumaa ji ci wàllu entretien entretien nag suñ koy wax mooy lépp lu yàqu ci jumaa ji moo xam pile moo xam ventilo moo xam lu mën a doon ak wàllu setal moo xam fóot tapis yi ak bale jumaa ji ak milas karo yi biir gi ak bitti gi surface yëpp loolu daayira Moukhaddamatoul Khidma moo ko yor loolu rek doy na sëkk ab liggéey muy lu mel ne jumaa ji nga xam ne liggéey mujj rek jël na juróomi milliard waxuma la nag yi ko jiitu maanaam ñu ne la yaa yor entretien bi te yéen ñi nekk bii bitim réew wala nga nekk ci biir réew mi te yëngu ci wàllu entreprise yu mag yi wala immeuble yu mag yi sax xam ngeen wàllu entretien li muy coûter kon lépp loo xam ne matériel la buy setal daayira Muxaddamatul ma daf koy soxla ci jumtuwaay yi muy soxla la bokk moo xam liquide moo xam machine moo xam jumtuwaay bu mën a doon moo xam oto boo xam ne dafay jël personnel u jumaa ji moo xam oto boo xam ne dafay vider di di vider oto vidage moo xam ambulance moo xam corbia yooyu yëpp jumtuwaay la yoo xam ne daayira bi daf koy soxla kon boobu moo jiitu beneen bi ci topp mooy sàmm wor mooy jumaa ji lu ci ndigal yi ñu sëriñ bi jox la te hésité ci ndax Sëriñ Tuubaa moo wax ci Matlabul Fawzayni wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wa fi di ñaan boroomam ne ko nag ma defal samay barab ak samay ñooñ ak mbaax nekk fa ba ñu royee ci ñoom ak mbaax kon su fekkee da nga dégg ñu ne tabax nañ jumaa ji ak fi ko sëriñ bi tegoon ak lim ci dëële ak li ci mag ñi daj def ci xaalis bu bari du caagee ne tabax bu rafet ak sorol yu gudd rek nga taxoon sëñ bi di ko santaal dafa bëgg tamit boo ñëwee nga fekk fi diina joo xam ne euh, ju mat sëkk ju tegu ci sunna la nga xam ne des na ko mën a roy moo tax kon daayira bi di taxaw ci wàllu sàmm warma ji nga xam ne ajjuma da nga gis ne danañ ñëw suba teel biñ balee ba noppi ñëwaat midi ngir taxaw ci bunt yëpp taqale góor ñi jigéen ñi jubbanti sàpp yi ak moytuloo fi képp koo xam ne da ngay def lu méngoo wut ak jaamu yàlla ba nit ki suy jaamu yàlla lépp mën a leer ci moom mu man koo def ni bëgg loolu nag aju na ci biir jumaa ji ak yokk bi ak penc mépp lépp loo xam ne lu fi yellul la te sëriñ bi di ko bañ euh, di ko bañ euh, daayira bi dafay taxaw ci sàmm lool kon loolu it ci jumtuwaay yi nga xam ne ci taxawaay yi nga xam ne daayira bi ngi koy taxaw la bokk bokk na ci taxawaay yi yi nga xam ne daayira Muxaddamatul daf ko te sëriñ bi dénk ko ko mooy wàllu armeel yi njëkk yi nga xam ne sëñ Saliou moo ko moo ci joxoon mille cinq armeel yi ci jumaa ji ngir ne leen bëgg naa ngeen saytul ma armel yi ak morgue bi ak lu ci aju lépp ba képp koo xam ne ñi ngi ko fi indi ngeen xam fan la jógee ak lu ko tax a jóg ak lan moo tax ñu indi ko fi te saytu lépp loolu daayira bi depuis 2005 ñu ngi koy def bi ñu demee ba quatre vingt 2014 ci le 9 janvier 2014 Sëriñ Sidi Mokhtar tëj armel yi ubbi bàq tamit dafa jox daayira Moukhaddamatoul Khidma ndigal ngir ñuy saytu baqe muy saisonnière ba fa nekk lépp loo xam ne moo aju ci na ngeen gis ñu organiser baqe ak nañ koy nosee lépp taxawaayu daayira Moukhaddamatoul Khidma la loolu it euh, noonu la demee. ni ko noonu tamit ci atum 2005 lañu Sëñ Saaliwu joxaatoon ndigal ci ñuy dundal weeru koor ci jumaa ji ci ñaari anam muy berndeel ruu yi ak berndeel jëmm yi ndax xam ngeen ne dëkk bi bari na ay nit. sëñ wax nañ département mbakke moo ëpp ay nit buñ koy wax tuubaa tax kon bëri na fi tamit ñu néew doole ñu tumuranke te weeru koor dafay laaj social moo tax dayiram xadimatul xidma ànd ak opérateur économique yi ak ñiñ lëkkalool ci biir réew mi ak bitim réew tax na weeru koor lu man ñeenti junni ak juróomi téeméer danañ fi daje bët bu set ngir di fi doge si ak di déglu si waxtaan yi muy fanweeri waxtaan yi diine yoo xam ne dafay am ci bis bu nekk ay boroomi xam-xam yu mag di ko di ko di ko taxawe ñuy génne ay téere yuy génn ci waxtaan yooyu waaye tamit di dogal nit ñi di leen berndeel lu mat ñeenti junni wala juróomi junni nit di fi daje muy budget bu mag boo xam ne àgg na ci soixante-dix million am na ci ay mbooloo yoo xam ne ñii sasoo nañ suukar ñee sasoo tàndarma ñee nangam ñee di indi kon loolu tamit képp ku dégg te yor mbooloo liggéey la bu rëy a rëy boo xam ne mënees na ci am mbegum Serigne Touba ci koor gi loolu tamit euh, ci taxawaayu daayira Moukhaddamatoul Khidma la bokk. bokk na ci liggéey yi nga xam ne daayira bi daf koy def mooy comité d'organisation màggal bi mu ci atum 2010 Cheikh Mamadou Lamine Bara dénk leen accueil hébergement c'est pour muy képp koo xam ne ganuk sëriñ nga guy ñëw te jóge ci biir réew mi daayira Muxaddamatul Xidma ñoo lay dalal euh, saytu la euh, ba nga bàyyi ko fi war dellu ci sa kër ci taxawaay yi nga xam ne mooy war yëpp. niki noonu bokk na ci liggéeyi daayira Muxaddamatul Xidma muy lépp loo xam ne lu aju la ci biir dëkk bi ci loo xam ne luy sàmm worma ji la ci biir ci jumaa yi ak ci barab yi Euh, daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi ci liggéey liggéey bu rëy di former jumaa yi di leen tàggat ci lépp loo xam ne moo war ci ni ñuy saytoo jumaa moo xam nodd moo xam li xam noonu tamit lañ koy defee ci ñi yor armeel yi ci dëkk bi yépp mu di leen saytu ci nan la ñuy waajale ko fi jógee ba niñ koy jébbalee boromam loolu lépp ay taxawaay la yoo xam ne daayira bi euh, daf koy def kon nag yooyu ma lim rol yu rëy rëy la yoo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma daf ko daf ko sëriñ bi daf koo dénk muy jumaa ji ak penc mi ak armel yi bokk na ci yi am solo te daayira bi dif ko di ko taxawee muy weeru màggal bu ñëwee ñuy def entretien général ak tamit di wëyal liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci lu dul màggal di sàmm war may war may war may war may barab bi di mobiliser daanaka lu jege lu ëpp junniy nit di leen berndeel di leen taxaw ngir ñu saytu liggéey boobu loolu tamit taxawaayu dayrum xadimatul xidma la ni ko noonu dundal guddi gàmmu xam ngeen ne dayrum xadimatul ba mu tàmbalee guddi gàmmu yàgg na lool ca ba muy doog a soosu daanaka ba am ñaari at ñett sëñ Saliou Mbacke digal ñu ko ba léegi gis nañ ne ni ñu dundalee guddi gàmm fii ci penc mi ci ci ak niñ koy defee di ko dàkk ni ko sëriñ bi daa defee loolu lu rëy rëy la loo xam ne tamit képp koo xam ne euh, yaa ngi siiwur jumaa ji wala ngay bàyyi xel penc mi gis nga ne taxawaay bi daayira Moukhaddamatoul Khidma di def ci dundal guddi gàmmu di ci def liggéey bu rëy rëy rëy kon loolu it ay taxawaay la kon nag yooyu laaj na budget bu rëy rëy rëy laaj na tamit moyens yu bëree bëree bari mooy moo kon lépp loo xam ne lu aju ci wàllu logistique la ci ay oto yu yóbbu personnel bi ay oto yuy vidé ay machines yuy yuy nettoyé ak lu aju ci wàllu jumtuwaayu koom yoo xam ne dana sàmm warma ji niñ ko bëggee loolu lépp ay taxawaay la loolu kon ci tënk yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma dana koy taxawe ci bàyyi xel ngir bokki yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bokk na ci yi nga xam ne daayira bi bëgg na ko euh, te ni ma ko waxee léegi mooy ay baas baas yu mag yu yu yu yi nga xam ne mooy yi gën a moderne ci àddina bi ndax gis ngeen ne guddi gàmm dañ koy dundal te nawet bi juróomi at yëpp ci nawet bi lay ñëw ak bis yi nga xam ne sëriñ bi daf koy woote ci penc mi jumaa ji di fees dell ba penc mi manqué ay jumtuwaay yu nit ñi toog mooy baas yoo xam ne des na ci toog te bu tawee nit ñi duñ tooy te duñ naaj du leen tiim loolu euh, ñu ngi ciy lancé appel tamit ci képp koo xam ne yaa ngi ci àddina bi moo xam Amérique wala Europe wala Afrique te yooyu baas la yoo xam ne yu seer la yoo xam ne benn bu nekk rek daanaka dana jege ay millions loolu tamit lu du daayira bi bëgg la muy ay baas pour màggal wala gàmmu ak euh, ay garabi fajukaay yu ni demee loolu tamit xam ngeen am na centre de santé bu nekk fii ci ci biir jumaa ji nga xam ne bu événement amee mboolooyu yu bëri ñoo fi daje nit ñi di kiris ak a daanu muy soxla garab yu bëree bëree bëree bëri loolu it ay jumtuwaay la yoo xam ne euh, lu mat a bàyyi xel la. ni ki noonu xam ngeen daayira bi wàllu xam-xam daf ciy yëngu yëngatu yu am solo ba tax na daayira bi am na ay terrain yu yu yu yu rëy yoo xam ne jëndoon na ko ngir fas yéene faa tabax centre formation bu mag boo xam ne dañ ciy tàggat képp koo xam ne am na loo aajowoo ci wàllu diine loo aajowoo ci ci ci ci wàllu diine euh, moo xam nodd nga bëgg wala liqaam wala di jiite wala ngay def yu ci aju loolu lépp tax na kon ñu bëgg a benn centre formation ak kër social boo xam ne tey képp koo xam ne dugg nga ci lislaam wala nga dégg Tuubaa ñëw fi ñëw ci jumaa ji dañ la mën a teeru dalal la yóbbu la foofa di la di la saytu di la xemeem loo diine di la jàngal sa lislaam ba nga ba nga ba nga xam xam ko xam tamit lan mooy yoon wi xam tamit sëriñ bi loolu tamit faw ñu am barab bu mel noonu boo xam ne dañ fay dajale ñu mel noonu ak ñi nga xam ne tumuranke dañ ci wàllu diine eh, di leen di leen taxaw kon su ko defee daal xam naa ne eh, ci tënk eh, loolu mooy lu mel ne baas yi ma waxoon léegi baas yi yoo xam ne day yaatoo cinquante Euh, vingt cinq sur cinquante vingt cinq sur cinquante maanaam yooyu moom lu gàtt-gàtt soxla nañ ci lu mat ñeenti baas yoo xam ne ci wet yëpp dafay am nga xam ne daal bu événement amate moom du am jafe-jafe boobu du ñu am jafe-jafe boobu ndax événement bu am rek dañuy luye ay baas kon loolu ñu ngi koy ñu ngi koy séntu ñëpp liggéey la boo xam ne nag Serigne Touba diggee na ci dëe la ci wax ci njariñ yu bari rawatina bi muy santaane jumaay Tuubaa lam ca waxoon lépp nag ba léegi dañuy jàpp ne képp koo xam ne yaa ngi fi loola day woy day woy ba léegi kon ñu ngi ciy soñ ñëpp di ci séentu ñëpp seen taxawaay di lenn kenn lépp ñëpp la lu nay ku ne mi ngi ci Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer it dootoo feeñ kon nañ fexe ba di ci feeñ ndax am nañ euh, tawfeex ci di ci feeñ saa su nekk loolu nag mën ngaa nekk fu ne di liggéey ba noppi mel na ne bët bu set yaa ngi gàddu sag bale di bale wala nga gàddu sab serpillière di nettoyer loolu nan nga koy mane mooy lépp loo xam ne mooy bagage buy setal wala boo xam ne jumtuwaay la boo xam ne dañ koy soxla ci jumaa ji soo ci manee jàpp nga jàpp ci ak loo ci man ci wàllu taxawaay soo ko munul euh, fépp fu daayira nekk wala mbooloo nekk fay suñu organisé woo di dajale addee dana mën a ñëw dem ci entretien bi wala mu dem ci warma ji ak fu mu mën a doon loolu daal mooy taxawaay yi nga xam ne bëggoon nañ koo tënk ngir leeral ko nga xam ne képp gis vidéo bi te bëgg a xam lan mooy taxawoo daayira Muxaddamatul Xidma nga man a xam ne lii mooy eh, sey jumtuwaay. ni ki noonu am na jumtuwaayu communication bu mag boo xam ne gis ngeen ne julli yi fii nekk ak yëpp dañ koy direct muy MKTV CMT loolu lépp tamit ay jumtuwaay la yoo xam ne eh, daayira bi daf koy soxla eh, ngir di ci taxaw. képp ko xam ne nag bëgg nga dugal addiye ci keesu daayira Muxaddamatul ma ak foo mën a nekk. soo ko yónnee ci 77 686 13 13 dana agsi ci daayira bi dana ci agsi euh, Wave la Orange Money la loolu mooy weef daayira bi Orange Money kon képp koo xam ne bëgg ngaa dugal addiya soo ko dugalee ba noppi yónnee ident seen identification incha allah danañ yónnee mandarga muy wane ne jot nañ ci kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sunu borom mu nangul ñu te fulal ñu te yokk wërsëg yi te barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu